rawatina journée bi nga xam te ne moom la ñu amaloon niki démb foofee ca centre international conférence bu Abdou Diouf di présentation projet bi nga xam te ne moom la ñu duppee le projet de la transformation du Sénégal destination 2050 nga xamante ne bëgg nañu fii ak vingt cinq ans ci kanam wala vingt six ans fekk réew mi jóge na ci situation yi nga xam te ne moom la nekk daal di dem vers le développement lépp nag sukkandiku ci benn projet bi nga xam te ne moom la ne les nouvelles autorités euh, daal di présenté ni ki démb mu di projet boo xam te ne moom la ñu jaayoon ñii di askan wi ba tax ñu fal leen ci bopp mi laata loolu dañuy ñëw rek ci benn fee boo xamante ne xew na ni ki démb ginnaaw journée boobee laata ñuy ñëw ci projet bi mu di euh, suñu doyen bi nga xam te mu di Lamine Ndiaye nga xamante ne ni ki démb bi mu jógee foofu ca Diamniadio Daouda Digal dafa def euh, accident ci autoroute bi waaye ñu gis euh, kii di le président de la République def acte bu am solo maanaam dem ba ci moom fa mu tëdd nga xamante ne ci lalu hôpitalam rendre ko visite ngir réconforter ko parce que moom itam acteur la ci film wi nga xam te ne moom la ñu présenté projet bi. bon euh, yàlla dafa def ne damaa nekk di xool photom rek nga wax ko. ay kilifa gi di Lamine Ndiaye. Mhm. nekk icône démb ñu gis ne euh, sincèrement. Euh, ca grand théâtre mhm. par rapport ak film bi nga xam ne moom la ñu def mhm. aussi am lu bëri loo xam ne xew na si aussi dama am sens hier poser ko question mais dama am sens fekkee accident bi dama am sens aussi gis ko vidéo ba photo bi nga xam ne moom la ñu bëri di photo yàlla dafa def ne damaa fekkee mm. waaye du woon sama cër mm. naam taskatu xibaar la man ma génne image man bokk nga si ñi mag njëkk wax ne man fekke naa mbir mi waaye euh, ni mu demee moo tax jàllale ko euh, ji nga euh, avant tout démb li xew mm-hmm. mooy ginnaaw bi nga xam ne génn nañ jëm ñaajo mm-hmm. oto bi nga xam ne Lamine njaay moom la nekkoon oto bi si boppam dafa dëpp daa def dafa waaw tonneau mm-hmm. moo terme ba merci beaucoup Euh, bi ñu tourné ñëw foofu ma gis euh, euh, le doyen Samba Biaye gi taxaw. Mhm. circulation bi xat mais si ma gis ki nga xam ne ma jis ki nga xam ne moo di kilifa gi di Lamine Ndiaye toog. bi mu toogee nga xam ne sonn na. Mhm. nga xam ne bi mu toogee sonn na. Mhm. Euh, euh, fi nga xam ne foofu la ne nga gis ko ni wéeroo liñ ne oto bi dafa tourné tonneau la def ba Lem Ndiaye si boppam moo ci am ay jafe si wàllum euh, santé nga gis fi nga xam ne foofu la toog moment boobu ñun suñu oto nañ ba demandé ñu ne ñu bon ça mhm. état de santé moo am tuuti jafe-jafe yooyu ma am ku ma àndal ab kilifa sama patron de presse si boppam. moom ne ma Daouda. Lamine Ndiaye ma ne ah, du sama cër. du sama cër information la bu ñu war a joxe waaye hmm. Lamine Ndiaye la boo xam ne maa ko dékkaloo micro léegi nii hmm. muy wax sama caméra ñoo ngi ak moom war nañu ko mën a filmer waaye war nañ ko mën a wane waaye njabootam nan la koy gisee bu ñu gisee seen waajur moom lañu doon tàccu di ko jaajëfal léegi matul juróom benn minute ñu génn ñu ne la kookee nga xam ne ki nga doon dékkal micro ba koy waxtaan ak moom tey kooku moom moom moo def accident bi fii nga seetlu ne xam ne euh, suñu boroom euh, moom la suñu boroom la beneen bi aussi nga seetlu leen moo di euh, le fait ñu tànn ko aussi nga gis visite bi nga xam ne moom la président de la république ba Bassirou Diomaye def. Mhm. mooy kenn la koo xam ne am nañ ci moom yaakaar ñëw na am na rôle bu am solo boo xam ne joué na ko démb nga seetlu ne bi mu defee accident boobee. Mhm. président bi da ko dem seeti bi et c'est important. geste bi nga xam ne le président de la république def na ko ginnaaw gi nga xam ne euh, président bi ci boppam. Mm-hmm. Euh, bi muy nuyu Lamine Ndiaye da nga ko gis mu sukk dañu am suñuy réalité mm. te Sénégal dafa am Sénégal bi ñu bëgg a defar ñun sénégalais ñoo ko bëgg a defar suñu culture ak li nga xam ne moom la ñu xamee aussi nga gis kenn koo xam ne jege na la ñu ne la kookee yéen nekkoon léegi accidenté na nga gis ko bi ko yóbboo si boppam nga gis le président de la république ñëw assisté ko xool ni mu mel leneen aussi moo xam ne laa ko wax te di ko wax aussi yaakaar naa ne euh, démb euh, fii Lamine Ndiaye fi ñu ko tegoon foofu du waru fa woon nekk waru fa woon toog yaakaar naa ne man ba ma fay romb. Hmm. Euh, ambulance yi bu ñu nekkoon gaaw nañ wala ña nga xam ne foofu ñoo fa nekkoon yaakaar naa ne au moins waroon nañ ko mën a évacuer beneen bi aussi jam ñaajo ak foofu soriwul et bi may xëy le matin di ñëw jam ñaajo am na ay oto yoo xam ne dugg nañ fa waa sapeur euh, pompier ak ay ambulance yoo xam ne ñoo ngi woon jam ñaajo foofu ak fi ñu nekkoon mhm. matul li nga xam ne moo di dix minutes image yooyu man damaa gëm ne waroon génne ndaxte témoin oculaire laa si gis naa si mhm. waaye man sincèrement du ma ko mënu bu ko woon mënuma ma ko génn même sama patron de presse ma ne ko imagine lii kilifa la mag la yaram bi tagg téeméer njabootam toog di ko xaar man bu ma ko génnee rek yaakaar naa ne defaruma sax li nga xam ne moo di image bu kilifa bi je pense que nit yi dañuy photo bañ ko ba ñu ko génnee au moins euh, professionnel nañ jëm nañ fulutee li nga xam ne moo di kanam gi ndaxte mag la ak état boobe mais alhamdulilah moo ngi sant bu baax a baax aussi le président de la république dem na ko xool na ko visiter ko masaw ko épaulé ko andil ko li nga xam ne moo di soutien mm. beneen bi le soir bi nga xam ne def nañ ko si euh, ki nga xam ne euh, moo moo di moo di Lamine Ndiaye koo xam ne dem dama ko posé question ma jàkkaaram ne ko pourquoi ñu jël la nga def li euh, nga nekk li nga xam ne yow yaa nekk choix bi mu ne ma dañoo def casting ma ne ko ñu bëri gis nañ nga doon xeexal Ousmane Sonko maanaam nga doon wax dëgg si boppam sax pas xeexal ko mais nga doon wax dëgg est-ce que nekkul ne looloo tax mu jël mu ne casting la casting boobee niñ ma si tànnee ñeneen ña fa nekkoon dañ ne man sax man maa ko mën a def beneen bi mooy mbir bi en français lañ ko bindoon en français lañ ko waroon def mais bi ñu ñëwee ba foofu lañ si wolof. Mm. tekki nañ ko si wolof am na si moo yoo xam ne man maa ko tekki beneen bi ma ne ko ndax bi ngeen di def lii amu leen ay jafe-jafe mu ne ma ay xale laa ko si xoloon xam nga ne c'est compliqué mais jour bi si boppam film bi ngeen gis jàppale ne film boobee film boobee dañ ko naroon sax arrêté ndax temps bi xatoon na jour bi nga xam ne moom lañ ko waroon tourner dafa taw moom mu ne leen réewam Sénégal jaral na ko même bu tawee ci boppam jàpp ne acteur heure boo ko woowee dafa war a bi nga gis ñi nga xam ne loolu lañ ko jëlee baobab xale yi ak à son aussi nga gis démb mu ñëw sincèrement mm. day wane Sénégal am na ñoo xam ne ay écone lañ mm. am na ñoo xam ne ci histoire du Sénégal def théâtre ça ne veut pas dire nga nekk nit ku bon wala nga nekk dara ay yaakaar naa ne ndaw ñu bëri war nañ ci ràññee mooy benn nga nekk kaddu askan wi. artiste aussi mooy nga jël see responsabilités seetlu nañ atum 2012 ba fi ñu yegg si. majeure mm. partie ces artistes ñu woon jël seeni responsabilités te bu ñu waxee nga nekk artiste ak boo si mënti doon. maanaam engagement la war a doon. nga mm. nekk au côté du peuple gis nañ ko mu nekk si gis nañ ko aussi Sénégal bi ñu war a defar deux mille ñun xamuñu dinañ ko fekkee moom xam dina ko fekkee mais nga gis ne wane ne malgré baaw baaw boobee moom moom lay firndeel. guy gi ci boppam moom lay firndeel mais xale yi nga xam ne moom la àndaloon xale yooyee jox na leen li nga xam ne moo di ay doomu guy ngir ñu jëmbat ko ngir ñoom ñoom ñee ñu nekk li nga xam ne moo di dans l'avenir loolu nag li muy wane mooy am nañ réew moo xam ne dañ ko yàgg a defar si rakk day topp mag mm. mag aussi comprendre rakkam beneen bi aussi lu muy wane mooy réew la boo xam ne am na loo xam ne moom la ñu bàyyil dañoo yàgg nekk suñu kilifa. Mhm. ñu ñuy won yoon di ñu épaulé et loolu en tout cas moom la ñu gis en tout cas ñoo ngi koy masawu di ko jaajëfal bu baax a baax te di ko wax aussi ne wér ak jàmm. lii daal mhm. nga xam ne mooy li xewoon si cadre mhm. Ndiaye. Euh, euh, euh, monsieur Ba un petit commentaire par rapport ak acte bi nga xam te ne moom la njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye def dem fekki ki nga xam te moo di le doyen Lamine Ndiaye fa mu tëdd ak li nga xam te moo ko daal di dal démb rendre ko visit ngir réconforter ko waaye itam dooleel ko ci situation yu métti yi nga xam ne moom la nekk jëm waaw euh, li may njëkk a def mooy ñaanal ko yàlla mu jóg fa mu tëdd. Mhm. delluwaat ci njabootam ndaxte dafa nekk nit koo xamante ni dafa am lu mu représenté ci projet bi. Mhm. mooy Père Lamine Ndiaye. ndaxte ba muy métti la taxaw jël position Sénégal yëpp di ko gis nit ñi di ko wax lu nekk mais faalewu leen. Mhm. mu xam ne lii mooy dëgg mu jàpp ci dëgg ki ci dëgg moom ku ci nekk allah kulli àll kanam rek ngay jëm. donc di appeler aussi chauffeurs yi nañu def ndànk diggante Diamniadio Dakar xaj accident xaju ci. oto boobu mën na def tono mhm. diggante Diamniadio Dakar accident xaju ci il faut que chauffeurs yi tamit di def ndànk parce que tamit ay autorités fu ñuy dem foog mu am ñu jiitu. Mhm. tey président bu waree jàll dañuy bloqué. Mhm. premier ministre bu waree jàll dañuy bloqué mais bloqué boobu ñuy bloqué warul tax ngay mer ba dawalee yenn yi. donc chauffeurs yi je les appelle à ñu xool nu ñuy dawalee ndaxte diggante Diamniadio gi ak Dakar wax dëgg yàlla matul sax cinquante kilomètres. Mm-hmm. vraiment accident xaju ci. Mm-hmm. donc ñu ngi ñaanal euh, suñu père Lamine Ndiaye moom yàlla yëgate ko yëpp ko ci njabootam. Mm-hmm. Euh, ñaar laa ci jàngat. humanité wu ñenn ñi. ak ñàkk humanité ñenn ñi ndax li président def c'est un geste humanitaire. humanitaire mooy lan. kilifa gi jógee na fële def na am na ndogal bu ko dal mu dem def ko na ni ñu wax indil ko sa compassion mu am dem ñu amul humanité mooy ñi nga xam ne fekkee nañ kilifa gu ton noonu toog ñu koy photo di ko publier loolu ma ñàkk humanité la ci kilifa gu ton noonu ba pare jóge ci bés bu toll noonu ba tey rek ñu war suñu mbokk journalistes yi à la ñun dem nañ Fuuta ak le ministre des sports Khary Diène Gaye ba ñu dëpp ñu ton tombé benn accident oto bi def tënoo barki Serigne Touba Mbacke kenn gisu ko mm. kenn gisu ko te mënoon nañ ko photo dugal ko ci internet bi te le ministre moo def intervention ñu woo El Malick Ndiaye ñu woo waa Linguère ñu ñëw. Mm. parce que c'était à côté de de de de Barkédji mm-hmm. kenn yëgu ko kon donc nit dafa war am humanisme nit mënut a accidenté tëdd sonn nga koy photo di ko publier loolu rafetul dafa ñaaw ci image. Mm-hmm. donc di appeler les journalistes à la retenue donc euh, loolu daal la amoon lu ma ci wax di féliciter son excellence ci geste boobu mu def mhm. ak parmi tant de gestes yoo xamante ni ñu ngi koy def di wane seen humanité mhm. seen humanisme mhm. le président Diomaye Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko d'accord ay nitu kese lañu mais nag ma malheureusement Macky Sall moo ñu yóbbu woon ci gàssa gàssa ba nit ñi yaakaar na ñun dañoo violent alors ko amul benn violence bu nekk si ñun humanité yi kese moo nekk si ñun donc mais yàlla baax na incha allahu rabbi qui vivra verra sénégalais yi danañ xam le tandem Diomaye Sonko fan lañ leen bëgg a jëmale incha allah. Mhm. ci loolu sax la ñuy di dugg directement mooy fi nga xam foofu la ñu jëmee ni ki démb ñu wóolu woon wala bokk ñu daje woon fële.